du taaliba Serigne Ndiaga Sylla imaam jataay yi mu baaxoo di ànd ak yéen ci ay bés bu ne ñoo ngi fas yéene ñëwaat ci jataay boobu di ànd ak yéen ci téere sëriñ bi di wakaan xaqan alayna nasrul mu'minin tey nag mooy sunu juróom-benneelu jataay yàlla ñu yàlla dimbali ba ñu yeggale ko jàmm ba tàmbali yeneen xasida te ñu dajee cee ngërëmu sëriñ bi yàlla nañ ko sunu borom def wakaan xaqan bu njëkk gi nag. mat na ci ñaar fekkeelu bayit ak juróom-ñaar muy nafayta iblisa li gayri abada fi shahri za wa kulla man lam yaabuda tey ñu war a tàmbalee ci ñaar fukk ak juróom-ñaareel bi muy wajjih li man qad amanu wa aslamu wa axsanu muxjila man lam yuslimu kon ñu ngi ci page 8 bayit boobu moo njëkk ci page 8 mbokk yi sëriñ bi nee na wajih li man qad amanu wa aslamu wa axsanu muxji la man lam yuslimu nee na wajih sunu boroom yàlla nga jubale wala yàlla nga may li man ñeel ña nga xamante ne qad amanu gëm nañ mooy am nañ imaan am nañ tawxiid wa aslamu womatu nañ jox nañ seen bopp seen boroom maanaam ñi ngi jëfe ndigal yi di wattandiku tere yi wala di ko bàyyi wa axsanu ñoo ngi rafetal tamit ñooñu noonu nga xam ne gëm nañ wommatu di rafetal yàlla yàlla nga leen may loo leen li may xéewal loo leen li may teraanga yoo xamante ne mux ji la man lam yuslimu danañ ci toroxalee képp koo xamante ne wommatuwul képp koo xamante ne nangulul yàlla képp koo xamante ne daa féttéerlu ñi nga xam ne dañoo gëm di jëfe ndigal di sellal nga may leen loo xam ne danañ ci gàccalee ki nga xam ne womatuwul ki nga ñi nga xamante ne dañoo féttarlu loolu mooy bayit bu njëkk bi baytu ñaareel bi ci page 8 kawin li ummati nabii salla alayhi bi taslimi rabbun jalla sëriñ bi ne kawin yàlla yàlla nga defar li ummati nabii ci xeet yonantu bi yàlla nga leen defar yàlla nga leen defal defar leen defal leen defal ñan xeetu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam fu nga ko tuddee rek faw mu julli ci yonantu bi mu ne salla alayhi bi taslim salla yàlla na yàlla dolli xéewal alayhi ci moom bi taslim te dolli ko musal rabbun borom bi jàlla mu màgg mi yàlla mu màgg mi yàlla na defal xeet yonant bi yonant boobu yàlla na yàlla doole xéwal ci moom te doole ko musal lu mu leen di defal ijaabatan ak nangu ñaan bu nu ñaanee rek yàlla nangu nangul leen yàlla na ko yàlla defal leen ko mu ne nangul ñaan googu mu leen li yàlla di defal nag bu leen ko yàlla defalee ñu man cee tusix sixul aada mooy mooy bayit boobu ñu jàng ko bala ñu koy firi ijabatan tusix sixul adaa ila siwahum sarmadan wa daa mooy ñetteelu bayitu page 8 kon daf na woon yonente bi salaa xeetam yàlla na yàlla defal leen ak nangu ñaan ijaabata nangu ñaan tusax sihu goo xam ne danañ ci dàqee danañ ci mën a sorilee al aadaa noon ya danañ ci mën a dàqee seeni seeni noon ilaa siwaahum mu jëm ci ñeneen ñu dul ñoom mu jëm ci feneen fulul ci ñoom sarmada ba faw ba seen noon du leen jege ba di leen mën a yàqal seen noon du leen mën a jege ba di gàllankoor seeni mbir seeni noon du leen jege bay mën a xajamal seenu liggéey kon daal yàlla nga leen defal nangu ñaan goo xam ne leen ci mën a jañee seeni noon ba faw ba du leen jege du leen laal fenn du nekk seen wet waddaa ak ay tawat ñaan nangu ñaan goo xam ne danañ ci mën a jañee ay tawat ak i jagadi ak i wéradi ba ñoom ñu am kàttan am wér waaw am wér gu nu mën a taxawalee ndigal yi am wér gu nu mën a defee santaane sunu borom tabaaraka wa taala kon loolu mooy ñetteelu bayit bi ci xëtu juróom-ñetteel bi kon sëriñ bi dafa dooraat wakaana xaqan kon waaw gi moo nekkoon wajji waaw gi wajji li man xat amanu wa aslamu kaaf gi di kawwin li ummati nabii wa kaana alif gi xëcc nekk ijaabata tu sax siwul aada ila siwahum sarmada wadda mu ñëw ci nuunu wakaana gi donc wakaana ñaareel gi mu ne naafiu yaa karimu yaa muhayminu li yastajib walillazi yuhayminu mu ne naafiu yow yàlla mi nga xam ne yaay aji jariñe yaa karimu yow yàlla sunu borom yow mu tedd mi yaa yow yàlla yow mi nga xam ne yaay nangu ñaan li yastajib yàlla nga ma nangul lii nga xam ne jullit ñi ngi ñëw di ko sàkku ci man ma di ko ñaanal yàlla nga ma ko nangul wallazi ak lépp loo xamante ne rek yu xëy minu des na ci nangoo ñaan yàlla yow suñu borom yow mi nga xam ne yaay jariñee te yow ku tedd nga te yaay nangu ñaan yàlla nga nangu sama ñaan yii ma lay ñaan ci mbokk yi li ñu bëgg ci man ak lépp loo xam ne rek des na ci nangoo ñaan rek na nga fa jaarale ba nangu ñaan gi walla lépp loo xam ne ñaan la goo xam ne nangu ko rek tey waaye nangu ñaan gi jaarale ko foofu rek ba nangu ñaan gi nii wala lési ak lépp loo xamante ne yoxey minu des na ci nangoo ñaan nga jaarale ko fa ñaan gi ba yegg fa wakaana gi mat na kon euh, wakaana ñaareel gi wakaana mu des mu des xaqan xaqan xaala tàmbalee gi mu ne xafisu sun ummata xayri mursali an alladina kafaru bi rusuli mu ne xafidu yow yàlla yow mi nga xam ne yaay wattaw yaay sàmm sun yàlla nga ñoŋal yàlla nga protégé ummata xayri mursali xeetu gën gi yonant xeet yonant bi salaa sallam te yonant bi mooy gën gi yonant mooy gën gi ki ñu yónni yàlla nga sànn sàmm xeetam aar leen ñoŋal leen an allazina walis ña nga xamante ne kafaru dañoo weddi biir rusuli ci yonent yi yàlla suñu borom yow mi nga xam ne koo wattu mu mu wa mu wattu koo sàmm mu am ak sàmmeel yàlla nga sàmm yàlla nga ñoŋal xeetu gën gi ndaw gën gi yonant ci ñépp ñi nga ñépp ñi nga xamante ne dañoo weddi yonant yi ca ña nga xam ne dañoo weddi yonant ya yàlla nga leen protéger ca ñooña yàlla nga leen musal ca ñooña waaw loolu mooy ñaan gi xafisu sun ummate um sun ummata xayri mursali an alladina kafaru bi rusuli xafisu yow yàlla yow mi nga xam ne yaay sàmm yaay aji sàmm ji yàlla nga sàmm xeetu gën gi yonantu si ñi nga xamante ne dañoo weddi yonantu ya waaw mbokk yi lu ci jub sunu borom tabaaraka wa lu ci doonu noonu rek ngeen jéggal ñu ko te xam ne ñàkk fasaaxa la ak néew xam-xam in uridu illa al islah mastatatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullah